souvent da ngay am jafe-jafe pour fay ci waxtu wi nga war a fayee Dubai Port tamit dafa am jafe-jafe ci joxe conteneur ci heure bi mu ko war a joxe te xam nga conteneur bu ñëwee moom fukki fan rek lañ la may pour nga génne conteneur bi mais yow di nga def li nga war a def lépp mais doo mën a jot ci conteneur bi waaye tamit boo jëlee conteneur woo leen delloo si witt yi bu ñëwee dañ ko war a jël waaye mën nañ ko bàyyi ci sa camion lu toll ci une semaine wala lu ko ëpp xam ne camion bi du mën a jaat benn conteneur nga xam ne kon daf lay obligé ngay fay yow ay amende yoo xam ne amoo ci benn responsabilité loolu mooy li indi suñu jafe-jafe ak ñoom. Euh, dañ tàmbali liggéey bi tey jii ci guddi gi wax naa la ko euh, ndax ku ne xam na ne port bi moom warul taxaw donc bu taxawee rek lépp lu ñu ci man pour que mu débloqué des na ko def euh, nee naa la liñ bëggoon yu ci baree bari amuñu ko waaye nag liñ amaku si dañ nañ ci jàpp. continuer waxtaan yi mën naa ni euh, finalement déggoo nañ ci annulation magasin stressé tàmbalee ci première er août ba 30 novembre képp ku fa am conteneur da ko koo war a jël te doo ci fay dara